léegi bi mu waxee day def loolu. waaw en fait Macky Sall l'a reçu. parce que pourquoi waaw kay mooy jour bi ngeen seetee les pêcheurs de de de de de waaw léegi voilà exactement. donc léegi bu lu tax Macky Sall bi mu jaaxlee ba jaaxle. candidat yi bare nañu pourquoi moo moom Lamine Diallo ne ko est-ce que non non non non moom la consulter les 19 candidats bi mu bi ñu ne daf leen di consulter ah non non non non cest dire que moom dafa recevoir les candidats spoliés ñooñu indi fi coow li loolu indi mu reporté bi mu reporté ba pare bi mu ne dañuy def euh, concertation ñu ko wax ñun bu ñuy dem concertation on part avec les 19 parce que doo waxtaan ak n'importe qui looloo indi coow li am entre Coumba Gawlo Seck ak Mamadou Lamine Diallo parce que elle n'a pas compris loolu la lu ma tamit jàll wax ne que man du ma dem di toog euh, de euh, nu mu tuddati affaire bi avec tout le Sénégal ay grand sëriñ ak ay chanteur rek ay yeneen c'était pas ça le but ko pour dénigrer ko mais dafa ne contexte ba ko mayewul loolu indi pour te dire donc ça veut dire que on est même pas on est pas d'accord te demuñu ci yooyu donc ñun diñ ko waxoon dix-neuf yi ñi nga xam ne yow ñii ñooy ndeyu mbili ji ñii ñoo am problème tu dois recevoir voilà tu dois recevoir léegi recevoir ko parce que moment boobu jaaxle na xamul issue de sortie fu muy jëm. Mm. il a voulu savoir moom naka la ko mën a kii moo tax moom lu mu waxtaan ak moom nee na ko waxtaan ak moom par rapport à ce point précis par rapport aussi à la situation si def attention si Sénégal bañ a dugg si tooxi doonu boo dépa boo dépassé la date du 2 avec la encore une fois les problèmes qui peuvent se créer gis nañu suñu voisins yi naka la demee tey par exemple ne woon du woon dépassé nañu le 2 mais yàlla xam a xew Sénégal kon kon ja moom Lamine Diallo moom conseiller président mais un arriver ici. mais parce que à ce moment là xam du ñu am président au delà du. non donc loolu yëpp loolu laa la bëgg wax. donc dire nag yooyu il y a son idée en lui disant man yaakaar naa ne que lii nga bëgg a dem dem ba ay join kii ay décembre mënul nekk organiser ko avant nit ñi pare ci mu jeex. waaw léegi. ça c'était son idée trouver la bonne solution. mais loolu date du 20 date du 24 bi ak ah, wala 30 moom moo ko fi njëkk a tudd. yàgg na ko tudd nee na ay comme fii lañ toll le mars foog naa ne mooy date bi gën a baax nañ ko def ñu dem élection mu donc loolu yëpp donc loolu yëpp loolu yëpp ce sont des choses yoo xam ne xam nga nit ko bëgg sa réew aussi dafay am loo xam ne da nga koy xool parce il faut pas ñu foowee ko jooju foofu la ñu jaar